Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 04 04. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mboki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu dellu si wat ci suñu jotaay asalafu ma alquran mag ñi ak téere bi nga xam ne moom moo di alquran al karim fii ci la maison du coran nga xam ne këru alquran al karim la ñeel képp kuy soppee alquran wala ahali alqurani fi l aalami jamia tey nag incha allah ñu wéy ci tomb bi nga xam ne fa lañ taxawoon ci samedi bi weesu mu nekkoon ci lan juróomeelu tomb ba ci yi nga xam ne moom la yàlla buur bi subhanahu wa taala awee ci yonteel Muhammad daal di wattu téere bi muy yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam moom moo doon jàngale alquran alkarim mom moo nekkoon serigne dara sahaba yi di len jàngal alquran alkarim ma waxoon len ne ya lahu min sharaf bal ayyama sharaf teranga gure yi a ngi noonu mooy yontu yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam toog di la jàngal alquran alkarim al imaam tabari moom dafay nettali mu jëlee ci ki nga xam ne mooy abi abdurrahman sulami abi abdurrahman sulami ma sha allah hada al alimu alkabir wa hada zahidu al radiallahu anhu aw rahimahu yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala dajaleel ko ñaar yëpp te dajaleel ko aimatul qiraa yëpp ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo def ay jéego ba ñun ñu daal di jot li nga xamante ne moom mooy jàngeenu alquran alkarim yu wér yi muy nettali mu ne muy nettali ca saxaaba ya mu ne haddathana alladina kaanu yuqri'unana mu ne ñi ñu doon jàngal dan noo nettali nañu annahum yastaqri'una min annabiyi sallallahu alayhi ne ñoom de dañ doon jàngee alquran ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonente yàlla muhammad moo leen فكانوا إذا تعلموا عشر آيات نينا نيو نيوم سونو جانغون فوكي لايا تي يونتي محمد عليه الصلاه والسلام لم يخلفوها دونو كو ويسو موك حتى يعملوا بما فيها لودو نيو جيفي فوكي لايا يويو من العمل حتى يعلموا بما فيها من العمل بور نيو خام لاغا خامني موم لا نيو ورا جيفي تي يويي فوكي لايا نيو داري كوي جيفي فتعلمنا القران والعمل جميعا نينا نيوم دانيو بولي ون نياري دي جانغ القران maanaam dañoo jàng alquran waaye boole kook jàng jëfe alquran yonte yàlla Muhammad da doon da leen doon jàngal alquran di ko jëfe ñoom ñu doon ko jàng di ko jëfe <laughs> moo tax kiy jàngale alquran na góorgóorlu daal di koy jëfe waxtu nekk ma fàttali leen waxu Xasan al Basri ne umir naa umir naa an nata umir naa an naamala bil quran aw umira annaasu an yaamalu bil quran fata fa umira annaasu an yaamalu bil quran fattaxadu tilawatahu amala nit ñi dañ leen a digal ne nañu jëfe alquran ñoom nag ñu daal di ñëw jàng jël jàng alquran daal di ko yemale ca jëfe ga alquran dañ koy jàng di ko jàngale di ko jëfe nanu góorgóorlu bu baax a baax ci jëfe gi kon saxaaba yi nee nañu ñoom suñu jàngaan fukki laaya ci yontu yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dañuy laajte la nga xamante ne moom mooy jëfe ga ca nekk ñu laaj ko yontu yàlla muhammad ak nañ koy defee yontu yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam wax leen ko ñoom ñu daal di koy jëfe daal di door a continuer ca la nga xamante ne moom mooy yee ca topp da ngay gis imam al buxaari ba ko imam muslim gisee rahimahuma arrahman mu yéemu lool ci mokkalu imaam al Buxaari yi mu ne ko nan nga def ba mokkal xadis yi yëpp imaam Buxaari ne ko kay ma jox la nasiha parce que imaam Muslim ne ne ko dama bëgg a jox ma nasiha goo ne daanaka dootuma ko laaj keneen imaam Buxaari ne ko laa tasma xadisan aw laa taktub xadisan xadisan illa wa taamala bi bul bind benn xadis lu dul nga jëfe ko maanaam xadis boo dégg rek jëfe ko parce que loo jëfe dootoo ko fàtte kon nasiha boobu ñu ngi koy nasiha sunu bopp di ko nasiha ñëpp kon ay alquran yi gis nga loo ci jëfe rek doota ko fàtte hadis itam loo ci jëfe rek doota ko fàtte kon imam al buxaari bésam bi maanaam laaye biir bi la jox ki nga xamante ne moom moo di imam muslim saxaaba yi nga gis ne ñoom ku xëyoon ci ñoom rek eh, fa nga xam ne moom mooy atelier ba muy dem mooy dem ca jàkk yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam wala laaj ci fan la yonte yàlla Muhammad dem mu daal di koy topp pour daal dem daal di jàngi ci yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoom sax ñu tolloon foo xamante ne ku xëy mënoo jàngi maanaam ku xëy mënoo jëli dars da ngay jéem a wut koo xamante nga yebal ko maanaam soit nga jël koo xamante ne dafay dem uniquement di jàngi nga koy fay wala nga daal di ay ayloo ak nit koo xamante ne euh, bu teyee mu dem bu subaa nga dem loolu doy na ci mooy xadis boobee nga xamante ne imaam al buxaari moom moo ko nettali mu jëlee ko ci saxaabi bu mag boobee mooy kan omar abn alxataabi radiallahu anhu omar nee ne qaal kuntu ana wa jaarun lii min al ansar omar nee ne man de dama nekkoon mag sama benn dëkkandoo ci waa ansaar fii bani umayat ibn zayd moom sama dëkkandoo boobee mu ngi bokkoon ci ibn zayd ne wa min awali lmadina naam mu ne kunna natanaawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu yawman wa anzilu yawma ñun nag dañ doon ay ayloo ay ayloo lan dem ci kër yonente bi maanaam dem ci yonente yàlla muhammad alayhi salatu wasalam Tay bu demee suba ma dem xam waral mu ne fa ida nazaltuhu fa ida nazaltu jituhu bi xabari dalika al yowm min al waxyi wa gayrihi wa ida nazala faala mithla dalik nee na su fekkee ne tey man maa dem ca ca ca ca jàngu ga man maa dem ca yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam su ma ñëwee la ma fa dégg yëpp damay ñëw daal di ko koy nettali su fekkee alquran gu wàcc la ma daal di koy wax moom itam bu subaa su demee mu wax ma ko parce que ñoom ñaar ñi ku nekk dafa yoroon kër dépense war la ci kër gi xoolal saxaaba yi amuñu woon lu ñu doon bàyyi seen kër yi waaye lëndi Omar nee ne lëndi moom su demee man ma daa dem wuti lan lay bàyyi ci njaboot gi ma mën a am dépasse teeg suba mardi moom su demee man ma moom su demee wuti euh, kii nuñ ko te wuti dépense man ma daal di dem ci yonte yàlla Muhammad maanaam dañ ko doon ay ay su demee tey suba ma dem laa ilaha illallah mbokk yi laa udra lana laa udra lana mënuñoo am ngant ci ñàkk jàng alquran al karim amuñu ngant sahaaba yi amuñu woon oto lam takun indahum sayarat amuñu woon oto saxaaba yi amuñu woon whatsapp nga xam ne mën nga jàng ci whatsapp bi saxaaba yi amuñu woon cours en ligne laa ilaha illa saxaaba yi amuñu woon clim saxaaba yi amuñu woon télé saxaaba yi amuñu woon rajo waaye fawqa hada kull ñoom dañ daan dem di jàngi léeg-léeg ma gis gis nga yenn ustaas yi dañoo yombalal mbir yi ba mu ëpp quoi da ngay dajeek benn autorité léeg sax dégg naa fi kii boo xamante ne wax dëgg fi yàlla asiraatu ala mustaqim xaw ma nan la ti parce que léeg-léeg ab yàq moom du ma ko mën a mokkal waaw lu nekk nga di ko ci ab intellectuel nga xam ne scientifique la su lakkee anglais doo bëgg mu noppi suy lakk tubaab fii ba suba du ko yàq waaye fatiha mokkul su ñëwee yow mi ci ustaat bi mu tari fatiha bi baaxul nga ne ko baax na baax na baax na pour mu may la benn cent mille francs laa ilaha yaa moom alxuraan gi yow ba yàlla jàpp la ne ko baaxul ni ko alxuraan ji nga tari mokkul ni mu fexe ba mën métier ba mu ñu tuddee ko ab scientifique wala intellectuel Euh, fatiha gi mënu ko mokkal te fatiha gi moo koy tax a mucc bàmmeel fatiha gi moo koy tax a mucc yowmal qiyaama fatiha gi moo koy tax a dugg aljana mu ñëw tari fatiha goo xam ne xamoo ndax ci sin wala koy làkk wala nga ne ko noo baax na parce que euh, a méttital ci kanamam euh, moom mu bàyyi la dootu la jox xaalis <laughs> oustaz yi ragal leen yàlla ci loolu kon scientifique yi xoolal duñ leen ko baal dem leen jàngi alquran léegi dama leen di laaj député yi honorable député député bu nekk maa ngi lay laaj yow fan fan la sa alquran toll maa ngi leen di laaj député bu nekk yéen déput yi kan moo ci raw ndax am amayata nga yem wala abasa nga yem wala war mursalat nga yem wala wacce nga kamil ñaata député ñoo wacce kamil ndax am ngeen député bu mokal alquran la yàlla hu min sharaf député bu mokal alquran mo wara jité assemblée de ma ñëw pare fa ñëw ci ministère yi ministère yi maa ngi leen di laaj ñaati ci yéen ñoo mokal alquran wala ñaati ci yéen na ministère bu nek xol fan la yem ndax alquran am wirna wa ñu ñëw ci ci commissaire yi ñu ñëw ci colonel yi ñu ñëw ci généraux yi ñu ñëw ci ñëpp autorité yi ma ngi leen di laaj fan la seen alquran tollu القران جي والله الذي لا اله الا هو بامل لي لين دي تخا موي القران بامل القران مول دي تخا موتش باسكو كو تي دوغ با يالا بوغني لا سوف سي نلا نيت <laughs> القران رك لا فاي генي واو واو واو يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اكو في منا خم موي مينستر ليلا نغي غيس نان موسيل مينستر سام خريط لا ليلا نغي غيس نان جنرال سانغام سام خريط لا كولونيل سانغام سام خريط لا با يوم القيامه نيكام كولونيل دولا جيرين توس nekk nekkam général du la jëriñ dara ministre du la jëriñ dara président sax du la fa jëriñ dara xam nga kan moo lay jëriñ al axillaau yawma idin baaduhum li baadin adu illa al muttaqin ñi àndoon xaritoo ci ragal yàlla rek ñooy jëriñ nit waaw <laughs> ah, président yow maa ngi lay fan la sa alquran toll parce que yaay suñu kilifa maa ngi koy laaj na ku nekk sa alquran fan la toll nañ ko xoolaat ndax alquran moo la di muccal bàmmeel nañ ci góorgóorlu kon gars yi ñu bàyyi alquran bi ñu yombal saxaaba yi gis nga amuñoon lii ñii mbaam lañ daan war dem jàngi ñii dox ay kilomètres du ñu am sax ndox mi ñu naan pour dem jàngi alquran al karim yonent yàlla Muhammad da doon yéeg mbaam laa ilaha illa allah afdali wa xayri xalqillah da doon yéeg mbaam xoolal xadiisu Muaad muy nettali ardafani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ximaar yonent yàlla Muhammad daf ma toogaloon toogu toogu ci comme euh, scooter nga yóbbaale ni ci ginnaaw nee ci ab mbaam laa udra lakum kenn ci yéen amul ngante kenn ci yéen amul ngante yowm al qiyam ku jàngul alquran amoo ngant góorgóor leen jàngal quran waaw ku ko mënta mokkal fexeel sa doom mokkal ko ku mën amul doom jo ju mën a mokkal wala say doom màgg na fexeel su fekkee ne am nga xaalis nga dem ca daara ya pare ne ay gone demal ci daara yi am na fi ñoo xamante ne amuñu lu ñuy fayee nga dem pare ne ay gone ñu daal di mokkal alquran nga am yoolu ku doomam mokkal alquran kon ñun ñep nañ ci gorgolu saxaaba yi dañ xëy di dem di jàngi alquran al kon tay ji inshallah taala fofé lañu yemale suñu as-salafu ma alquran ma kana min sawabin fa min arrahmani wa ma kana min khata'in fa min nuqsaani salla al ilahu ala an-nabiy wa alihi ma labba mulabin aw tahallala muhrimu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes l'eau multimédia. l'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau ak accessoires ci ay njëkk yu xarañ. Yeen ordinateur yi ngeen bëgg yi ngeen di set ci internet bi ndekete l'eau multimédia am A ko ay imprimante yi ngeen bëgg yëpp ci qualité ak consommable yi ngeen soxla yëpp lépp multimédia am Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion